yàgg yàgg dara du ci soppeeku ku gën a rey dara jot doon jàng fii laa buy juum rek dana xale la di ko jubal bu la wakaanoo nekk nañu alay ci moom soo daa di way seede mais aji dëgg la de yaa tax fay bu ragal naa fa ñu yëxoot yi bul ragal bu leen ragal de wax taw ñu ragal leen man yàlla de wala tas taw bu leen watt bi ayaati ci kawtee sama sama lañ jëg xale leen gule aji néew maa ngi leen jàpp ci seen way suufee de man lam yàq bu ko àtteewum ñu am sa laal gi la rafet na ko yàlla walaay sa ñoo la jaay moom ñoo ak kawfra ñoo ma di way di de képp ku bañ a bañ a àtte ci téere bi yàlla bi koo ko xéefar la de wa katab naa farataal na nu it alayhim ci ñoom ci àgg tawraat ana nag tamit ka bakkan bees na rey ko bi na fi gisaa sa bakkan de xëy wi tam ma nga ci tawreet ku rey ñu rey la wala xëy na bët bees na fukk ko bu daa ni gisaa si fukk bët de su fukk bëtam ñu fukk sa bët wala sa bakkan bees na dagg ko bi dan fi gisaa si dagg bakkan de wala su na napp bees na njoof ko bulu suñu gisaa si njoof napp de wa su na bëy bees na gudd ko bi suñu gisaa si gudd bëy de wala juróoxaay jam-jam na gisaa suñu borom xëy la wa jam amun na dañu nag ba su ko daayam jam jam bayam rek ñu jam la mu toll noonu rek dañu sadaqa ko sadaqa na ñu ci fayu ga oo moom ko xaaral na far la leeral ñaa ko de koo xam nag ne ray nga jullit ba nag su ñëw jëbbale sa bopp ne maa ray diw nañ ma ray loola faral na la sa bakkaat de ku jam nit ba nag ñëw jëbbale sa bopp ne maa jam diw nañ fayu ci man loolu loolu kaafaral na kaafaral na ko bakkaatam de loolu loolu gërëm saafe yi saafe yi Malik dañoo wute Malik ne na al hududu sawaajiru la mais jëfam yi ñuy def ñu ma yàlla jajja rek la waaye du far bàkkaat la Malik yi gën a tàng saafe yi nag ne na al hududu jawaaziru la ne na jëfam yi ñuy def ñu bàkkaat dana jàng bàkkaat ba de dana dana ko far laay ji de dana ko saman ko sa bàkkaat bi ñu ko ko fara fi la alhamdulilah jigéen bi sallallahu alayhi wa sallam rajo bi yëpp ba jigéen bi bokk ci rajo dafa njaaloo ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko man de njaaloo naa ko sangee yonent bi dëgg ko mu taxaw di kanam ne ko njaaloo naa ko sangee yonent bi sax xam lu ko mu xaat ko mu ne ndax am kalam dara ngi nii ndax dof la ñu ne bee dee dofu mu ne ko nga ne mu ne njaaloo naa ko sangee te maa ngi yem sax door yonent bi gën a bëri yërmande mu ne ko demal nag ba wasin doom ji nga xam mu dem wasin doom ja gis ko indi yonent bi ne ko wasin naa ko mu ngi mu ne ko demal nampal ko ba mu far mu dem nampal ko ba mu far mu jiital ko xale baa ngi def mburu mu lekk mu indi ko ci yonent ne ko nampal naa ko ba far na ba léegi mu ngi lekkal boppam gis nga ko mu jaaxal mburoom di lekk loolu solo joxe ndigal nag danañ ko yóbbu ca gannaaw ba xewoon ñu jam koy doj ba mu dee rek ñu yóbbu ko foofu nag jam koy doj dam tàngee mu daw ñu daj ko nag ba jot ko jekkali ko ñoo wax ko yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ba mu dawee waroon nañ ko bàyyi luy maalu saa yit ni ceele sa nit ñëw ne ko nit ku bon ci ñu doon rey démb yonent ne ko tuubal ci yàlla kooku tuub na tuub doo xam ne bu ko ñun Medina ñëpp séddoo mu doy leen wala nangu nañu taxawal ci moom jotal don loolu wane na ne jotal dafay far bakkaar dañ yonent dam yàqu mu ko xattewu mu naan sallallahu balaa wasal na ko yàlla walaay ka ñaale ca xam ñoom zalimun wa itim lañu de yow soo ñooñu rek wa qafay naa fan tofal ala asaari ci jëy seen ñoom yonente ci xeesa ci xeesa yi ñu mariama kay dama mariama gannaaw yonente bani saare yëpp nag yàlla ñoom ñoom yàlla ñoom yonente yàlla xeesa de doomu mariama ja mu saddiqan mbir mu aji dëgg bi ma bayna yadayhi la nekkoon bir jëkkam mu ne tawra ci laala moom tawra la de te téere bi yàlla wàcce ci moom dëggal na téere ko jëkkoon de wa atay naa wa jox na ko moom Isaa li mu jiital li mu jiwee li mu yaay nekk la ji li mu jiwee te benn am ji ci ko ci réew wa nuuru ak jiital ak ayaat ko mu sedd xam ni te ak ji dëggal li ma bàyyi yaa day la nekk ci ci tam ci téere mu ne tawra ci yàlla moom tawra la o danta di jub o ma way sa danta di waat pour mu tàkk nañu weer ak ñu yàlla wal yaxkum ñu wax na naate alu lu jiw ñu ñu jiw ñu naan sa laaw ci wasal na ko yàlla fii ci lim jiw wa man lam yaxkum ko atewumu ñu naan sa laaw jala wasal na ko yàlla foofu laay ka ñaale jaay mu ñoom alfaasi ko ñoom di may jël topp yàlla de xatte yàlla rek lañ ñaan benn war daa xatte lu mooy ci rek yàlla bi baamu na ci mel na kat yi rek ñett yoon man lam yakum ñu naan sa laaw foofu laay ko mul kaafiruna foofu laay ko mul saalimuna foofu laay ko mul faasiquna de wa ansal naa wasal na ilayka jëm ci yow Muhammad alkitaab alquran bi laa ko ji mu saddaqan mu aji dëggal li ma bayna yadayhi la nekkoon ci jëkkam ñoom kitaab yi ilaala moom tawrat la wa muhaiminan te aji seede alay ci téere yu jëkk yëpp mboolem téere yu jëkk yëpp alquran mooy seen ku leen di liyutu di leen seedeel wala tabbi bul tapp ah fastumateel fastumateel bay na moom diggante seen ñoom ahlul kitaab Ibrahima sallallahu alayhi wa sallam waxal na ko yàlla rek yow rek nasaraan bi ku nekk ñëw ci ñun jullit ñi nañ leen àtte ci li nga xam ne moom la alquran xëral de wala te tabbi bul tapp ah waaw mooy bànneex seen ama jaaka way sa dikkal na wala dina la ci laala moom dëgg la di ko lim jaal naa def na di ko lim ñaan képp ci xeet yi ñun kum ci yéen ci rantan aw yoon te mun naa gën ak yoon wu daa ji weex de xeet wu nekk yàlla sàkk na leen diine joo xam ne moom la ñu jaamoo yàlla ak yoon woo xam ne moom la ñu xatte de walakin walaw saa allahu donte sooboon na yàlla nag la jaan rek mu kon tey mu def leen ummatan ngeen di ngeen diine waaye dana ngeen jenn su neexoon yàlla mu boole ñëpp ñu jub jàpp ci sariyaatu de walakin lu fi nekk asale na leen ñuy jëm ñuy yeddu yóbbuweekum ngir na mu natt leen la si ma daakum ci la mu jox leen ñuy topp ñoom la yóbbu aljanna ñu mooy ñoom la yóbbu safara te sabit la jëkkante leen alxayraat yi ñu de jëkkante leen ci def lu baax yéen marji'ukum delluwaay seen ila laay jëm na ci yàlla de jameen gis mu ngeen di mboole day nabbiikum tam solo leen bi maa kuntum ci la ngeen nekkoon tax tali fana doon wute fii ci moom ci mbiram bi ñëwee waa naka mbiram bi xukkum xatteel day na moom diggante seen bi ma am sa laaw ci rawasal na sa yàlla wala tastabi bul topp aw aw may bànneex seen waxtarhum wattandiku leen an yustinoo ko an yustinoo ko bu ñu réere la laan daanu ma am sa laaw waris yani la ré la waxal na ko yàlla yéne ko jëm ci yow de te in tawa law ndem dëdd nañu walam xamal la xana maa ngi laaw naka doon na ma yàlla ani si ñoom bu mu dugal ak leen baax bi ñu ñu ci benn bàkkaat seen de way na kasiran naka aju bëri nee naa si jëm yi la saa si xolo way jël nañu topp yàlla de dafa yëpp ko ne ndax danañu sàkku bu su ma jaay yee ci xat la wéer yee ndax xatte xéefar yu jëkkee nga xam ne xamuñu woon benn yoon ndax bu waate lañ bëgg day ci xatte bi nga xam ne yàlla ko wàcce wa man ahsanu ñëpp kenn di gën a rafet ne laay ci yàlla xokk man ci xatte de da xamuñ ne la ñu yokk ñu dinañu woon de képp ku gëm yàlla lay da nga xam ne xatte du yàlla tëral moo ci gën de yaa ayyuhal lazina amanu kooku la ko wasal wàcc na ci naafeq ya Abdullah ibn Salamati Abdullah ibn Ubay ibn Salul naafeq bu rëy yi waa ak àndandoom dañ daa xaritoo yahuud yi ak nasaraan yi bu dee ko ci biir ñaareel ñu bañ ñaar dina wóoru ñu ngeen wàccee bu ëllëgee bu ñu amee xew xew jamono du ñu dimbale bu ëllëgee ay yoon la dina amoon ay ngeen gaa ngi jëmal Alxuraan laata taxisoo bu leen jàpp ak yahuud ak yahuud wa nasara ak nasara awliya ñu di way ñëngoo de bu leen xaritoo ñoom di soppante ñoom baabu ñu ngi ñaan seen awliya aw baatin xarit ñoom lañ de ñoom kéefar lépp benn diine lañ ak ci tax dañ daje ci kéefar daal ñoom ñëpp benn lañ doona yéen bu leen xam bu leen xaritoo ñoom de wa man yatawallahum ku méngoo na mu leen minkum ci yéen jullit ñi innahu naka moom minhum aji naka la mu ci mboole seen de képp koo xam ne jullit la dem di xaritoo xéefar ya ci xéefar ya nga bokk rek na laa naka yàlla laa di jubal ci mu alxamul islam ñu ne ñu doole seen de dég méngoo ñoom akanaa gisaaga xam ne si na ñaaña te ko bi mu aji naka la ci xol seen maral na ak naafeq misaare danañu gaaw ci ñun ci méngoo ñoom naafeq yi nag dañuy jëkkante ñoom dem di méngoo yéefar yi duñ ca ragal dara yaqulu dañuy wax ne naqtaa dañu ragal an tusiibanaa bu jotatnu daa'iratun xew-xewi jamono ñu ne xew-xewi jamono mën naa ñëw ñu soxla leen wala war ñu leen a dogu nañ nañ xaritoon ñoom de ndax suñu xew-xewi jamono ñu jàppee rek ñu dimbale ñu te mbiram Muhammad du sotti lépp bansa laaw pour ne attal na yàlla an yaatiya bu mu dikkee bu mu faasa la aatan na yàlla an yaatiye bu mu dikkee bil fati ci ndimbal ñaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba sa ba na sañal diineem de gas ñëw jërëjëf ñu naan yéen si dafa moom yàlla mën na le mën naa dimbali yonent bi mën naa sañali baatinam naafeq yi gàccal leen bayis boo tañ mujj naa di ñu ne di way rëcc alaama asaro ci la ñu nëbboon ci am si seen ci bakkan seen ci sikk ak di méngoo yéefari de yaqul dana wax alla si na ñaaño amanoo gëm nañu ñenn ña di wax ñenn ña bés bu xottee suturay naa fekkee aaw laa ñu de alla si na ñoo di ñaaño ak samoo géñoon nañu bilaay ci yàlla jaada imaanihim dayob ngeen seen su newum naka ñoom la maakum aju naka la nga ànd ak yéen abdi kat yàqu naa maa leen ñu jëf seen de xaas ba tañ mujj xaas na doe perte de gàjjoob nañ ci àddina te daañu leen lakk jaalaaxira yaa yoo alla si na amanoo ma nga dab ñu mujj man diine yi kooku lu ko wasal wàcc na ci kuré yi nga xam ne dañoo mu sëteende fukki kuré ak benn mu sët nañu ñetti kuré mu sët nañu ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juróom ñaari kuré mu sët nañu ci jamono yi Sidina Abubakar Siddiq benn kuré mu sët na ci jamono yi Sidina Umar ibn Khattab ñooñu amaama ñoo jëkk a mu sët ci jamono yonent bi ci Musaylimatul Kazzaab ba Musaylimatul Kazzaab feeñee ci amaama di xoote ak yonent rek ba dindi yonent leetar ne fa min musaylimatu rasulillahi ila muhammad rasulillahi inal arda bayanaa istayni mais ñu ngi jóge ci musaylimatu yonent bi yàlla jëm ci muhammad yonent bi yàlla suuf si ñun ñaar ñoo ko seddoo benn wàll gi yaay seen ak yonent benn wàll gi maay seen ak yonent yonent bind ko leetar fa min muhammad rasulillahi ila musaylimatal kaddaab innal arda lillahi yarisahaa man yashaa'u min ibaadihi wal aaqibatu lil muttaqiin Musaylimatul Kazzaab moomu gannaaw bu yonent génne àddina la Sidina Abubakar takk xare jox ko Xaalid ibn Waliid wax ci yoon ca xare ba ñu dem Yamaama xare moom rey ko not leen boobu ci ñoo jëkk mu tëdd ci jamono yonent sallallahu alayhi wa sallam ak la fee bi nga xam ne fii moom xoote ak yonent ak fa jaaw ñetti kuréel yooyu ñëw mu def ci jamono yonent juróom ñaari kuréel nag mu def nañ ci jamono si naa wakati be jamono si naa war moom jubbi le fa rek moo moo mu tëdd dafa ñëw jébbalu te moo doon buurab saam jaaj bi wër kaaba gi nag jaaj benn xalal dox ci kanamam rek mu teg ko naka lu tax muy dox ci kanamam te moom buur la xale bi ñëw taw te gis naa war naa war ko ne ko yaa tes kii mu ne ko waaw mu ne xale bi sëy ci moom ah mu ne man may buur moom muy baagala muy sëy ci man amar na ko lislaam amul buur ak baagala lislaam xamale diggante ñett daf la ko bu la baal dafa fay rek loolu lay loolu lay àtte bi yàlla mu mer loolu nag ci guddi mu daal di daw dellu réew mu tëdd ci kuréel ak benn yi nga xam ne ñoom mu tëdd ci jamono yu jëkk dara buur bi wax ne yaa yaa dina amoon yéen gaa ngi gëm alquran man yartadi ku murtad nañu minkum ci yéen an diini wal diineem dellu ci kéefar te loolu yàlla xam na ne dana tabbi si te sa tabaati laaw xam naa dikkee yàlla da xawlum ci nit yuhibbuhum dana mu sopp leen wa yuhibbuuna wa dana nañu sopp ko def yàlla da xam naa indi ay nit ñoo xam ne bëgg nañ yàlla yàlla bëgg na leen de ku murtad du wàññi dara yonent ne nitu abi mu aji méngoo ci yéen laahu yàlla wa rasuluhu ak ab yonentam wala ñu ñooñu amoon gëm ñu def léegi am ngeen mbokk yu ëpp ci seen mbokk ya ñu leen dogu ndax seen kañoo rek ñoo amoon léegi yàlla ak yonent ak mboolem julli ci àddina yëpp seen mbokk lañ ba su ne ñaane yëpp moom danañu taxawal salaata julli yooyu yonent ñu joxe sa kaba sa gawum te ñoom raxaara ñoo na way torox lu lañu yàlla de wala way yonent ñu joxe sa sa kaba saba loolu te ñoom raak woon way julli lañu def Ibna Ali daf doon julli ba toll ci rukkoo miskin yalwaan mu daal di toq jaaram sànni ko ci biir julli ga ñu ne moom la laa ñu sakkaale way mu ne taw la ku méngoo na mu laa yàlla wara soo la hoo ak ab yonentam wala si naa ñaaña amoon gëm nañu way na xis balaa naka kuréel ak yàlla dañ ñoom alxaalis ba na ñoom ak yooyu nodde te innahum rek la adama wax waaye tabbal na saahir bara war lamir ngir bidal ala ci ne ñooy kuréel ak yàlla yaa ayyuha alladhina amanu laa tattakhidhu takhidhu dinakum huzuwan wa la'iban kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xamee ne yoonal nañ ñodd de yonent daf ne bëggoon naa ñu sàkk daal mandarga bu ñu xamee ne waxtu julli jot na dañu ñu mën a daje fekke si julli mbooloo yi am su xamee doon ñu taal safara ñu ne safara daal bugguma ko am ñu ko ne te ñu def jóolóoli ni labbe yi ñu bëgg jóolóoli mu ne bëggut jóolóoli ndax dafay ñu doog dafay ñu doog labbe yi te guddi mbooloo ci saaba yi ku nekk jigéen ci ñu wan ko nodde ñu jëmaam war jigéen na ko bilaal jigéen na ko axustu daay jigéen na ko ñoom dina gis naa seen jigéen ci seen jigéen ci toxtaloo na te lépp dajale ci la amee kon nag daal di joxe ndigal ne nañ nodde nodd nag mooy allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ashhadu anna muhammadan rasulullah ngelu baamuwaat baati seede yi sadu an laa ilaha illallah sadu an laa ilaha illallah sadu anna muhammad rasulullah sadu anna muhammad rasulullah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah hayya ala salah allahu akbar allahu akbar laa ilaha illallah ñu bari na danañ yàq ci seen nodd ci barab yu bari ñu dañuy wax allahu akbar soo ne allahu akbar dugal nga xam sal istifham da ngay laajte léegi waxatoo ne yàlla màgg na da ngay da ngay laajte ndax yàlla màgg na am de nodd ga yàqu na ñu ne allahu akbar akbar mooy ay junjung la ban dag ne yàlla ay junjung la allahu akbar rek nga waaye boo ne akbar yoo ko ceebaage rek yàlla si kabar yi jiitu jiitu la ashhadu an laa ilaaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah ñu dañu wax hayya ala salaa hayya ala salaa boo waxul hayya ala salaa hayya ala salaa mooy ñoo leen tabbi safara hayya ala salaa boo waxul hayya ala salaa xam ne hayya ala salaa rek da ngaa wax ne ñoo dem ci àll bi yooyu yëpp barab la yoo xam ne dañ yà dina ci yàqoo na dina yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ne noddkat yi ñooy gën a gudd dox di tënkal yàlla pare nañ ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ñant suuf di lekk seen yàpp yonent yi suuf di lekk seen yàpp ak saxeenu soreanku suuf di lekk yàppam ak ku wattu alquran ak ku nodd te nodd juróom ñaari at ci jàkka ngir yàlla ñii ñii di lekk seen yàq ba nga xamee ne yaram nañ nodd nag yeneen di digal Bilaal mu nodd yow di nekk seeraaloo mel na si ñoo gis diine bi dana ñu diine Muhammad moom ngaa xam mbaam gi nag sëkk bi ci diine boo ne ah yow dañu ne amoon na yéen gaa ñu demal Alxuraan laa doon tax bu leen jàpp Allah si ne ñaañoo taxasoo jàppale nga dina ko jiwe seen xusoo am di diine ji wala ba nag trente mu ne def ci laalam am ñaañoo aussi ci taamu joxe nga leen téere mu xam ci ngeen jëf seen wal ko faaraay nga bari awliya yi di yow ngeen ngor ñooñu bu leen jotee seen ñoom dara wacce leen xaw bu doon bay rafetal nodd bay ñaawal nodd wa taq laa ragal leen yàlla wal ko faaraay nga bari awliya yi di yow ngeen ngor wa taq laa ragal leen yàlla in kuntum lam nasiyan moom ñëw wéjjal wa izaa naadaytum te ndem woote ngeen ila salaati jëm ci julli su ngeen noddee te nodd du dara lu may xool ñu ñëw ci julli di taxaw si ñu jàpp ko seen julli bi reetaan ñu reetaan nodd de wala xeba nag sant zalika loolu yaa noon ci saa si nag ñoom xamuñu lañ yaa te ñu tal fi ñu amul dara ci kan moo tax ñu ñaawal nodd su ñaawal nodd daal dara ci kan nga am rek de du dara lu may tudd yàlla di xool jaam yàlla yi ñëw julli seen borom gisu ñaaw ñu ne gisuñ diine joo xam ne daal ressource bi yow yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla doo leen tontu léegi ëne ala ci kaa bi tekkul ko waxal wàcc na ma nga xamee ne yow ko ñëw ci yoon na sama wax ne yonente yi nga xam ne war nañ leen a gëm wax ñu daal li nga xam ne moom lañ war a gëm yonent ne leen gëm leen yàlla gëm alxuraan bi ñu wàcc ci man gëm mboolem yonent yi ma jëkkoon Ibrahima Moussa Isa mu ne Isa xaw ma diine ji xiis te diine daal yow muy def Isa mu di yonent Isa ci du dara lu may doomu yàlla bor na qul waxal yaa ahlal kitaabi yéen yahuud altantu mu ndax da ngeen sib mi naa ci ñun illaa ana amana ndara bu gëm nanu bilaay ci yàlla وما أنزل على رسوله من أجل جنون وما أنزل على رسوله من قبل الذكر وأنا أرسلكم رسلا جبريلا بل جبريلا فاسقا وجنون تقيالا أنا من المناعي ولنما يرى من جنون يالا جنون يرون جنون يالا القرآن يواسسين جنون ولن تري يواسسين وأرسل الذكر بل جنون بني سيئن نفس yen ñëpp génn yëpp li yàlla servé waaye ndem dañ ne gisuñ diine ji xees diine yonent bi kon waxal alu na bi ñu ci ñaaxal ci ne leen di sori ci lu gën a ban min zalika ci loolu ndax duma leen wax diine ji gën a bon nag ndem moom ngeen bëgg a xam ma soobatan ci taxawal laay fa yàlla man laa amaw laa oo ñoo ko faral na ko yàlla yërmande am waxaatu ba tam nara alay ci moom wa jaara tam def ñu ci ñoom alxira dafay golo wal xanaa fi laa ci mbaam tëgande waa ba da ak ñu jaamu nañu saako sa këram xam nañu bon diine tigi tigi tigi ñu xiis fa yàlla te ñoo ñoo fay gën a bon ak tay mooy yahut bani israel la ñoo xiis ci àddina ñoom nga xam ne yàlla rëbb na leen yàlla mere na leen yàlla masax na leen soppi leen golo ci jamonoy daawada masax na leen soppi leen ay mbaam tugal ci jamonoy isa fàkk na ci ñoom ñoo xam ne dañuy dem ñu masax leen ñoom it dañuy ci jootal di tëj saaxoot ci jamono yonent yàlla muhammad te mooy kaaw bi def rafet xëy na sax walaay te ñoo de gaay tor ñoo gën a bon makaanan ci barab de waaw dal ñoo gën a réeral alfaay sabili wali fi yoonu jubbe isa jaawakum dam di kanam ngeen xaala ñu wax ne aman naa dëgg nañu waxa daxalee na biir moom xalax nañu di kufri ànd ak kéefar moom te moom xarajo jooju nañu di ànd ak kéefar boobu bu ñëwee nag gën nañu waaye bu ñuy dugg day kéefar la ñu duggaale te ba ñuy génn moom lañu génnaale boo na xaw ma kañ lañu gën wala wala yàlla alama aji xam ne moom bu ma kaan na gënañ nekkoon nekk moo doon na bëgg rek watara ji sanga kasiran aji bëri munum ci ñoom ñu saare woon gënañ bu gaaw udu fi ci nar wala duwaane tooñ waa ak liim ak lekk seen suuf sa aji haram na ci njar la bi sa bon na maa kaanoo yaamalu na jëf seen de saatee fa ñee ñee ko bon jëf law laa yan haahum lu terewoon tere leen rabbaan ñoo na way xam ne di way jëfe wala baaroo ko di yee mun ko an xawlihim ci wax seen li ay nar waa ak liim ak lekk seen suuf sa aji haram la bi sa bon na maa kaanoo soxna jëf seen de ñoom borom xam-xam ya de jooju laa gën a tàng ci xaalim ci alxuraan yàlla ne bu terewoon borom xam-xam yi tere leen lu bon lañ doon def ñoom borom xam-xam yi bañ a tere lu bon ñoo bon jëf moo tax ye digle lu baax tere lu bon xaq la ci képp ku yàlla jox xam-xam war nga war nga koo def buñ toppee baax na buñ topp ci dem yow sa baat gudd na de waqaalati yaana al yahud yahud ba nga xam ne na ñëwee dinañ yonent bi yàlla wàcc ci ñoom d'accord dañ nekk ci ci suuree ree ree amatuñ dara ñu mujj nag naa yàddulaay loxol yàlla day waaye maxloo luñ jaxlam yàlla day léegi dafa nay dañ takk loxo joxe joxetuñu dara bóor daal ne gullat yàlla na jaxeet ay juróom ay loxo seen wërus yëpp yi ñoom kay yàlla na yàlla takk seen loxo wërus yëpp yi wala ñu te yàlla rëddeef leen maa xaaral ci kaw ci lañ wax bal bëgg ya daaw yaari loxo ne tey ma ko sa kaanu yaari ñu kanam la yéen yàlla koy dafa tabe ba sa tabe kooku di maye yaari loxoom noonu la yàlla mel de yaddu yàlla saxaral na boppam loxo ci alxuraan saxaral na boppam tànk ci alxuraan mais hadis mais dëggu dëggu yàlla ba xada moom moom lay teg jaana moom mu feet dinañ tudd reeru yàlla ñooñu ay melo la yoo xam ne seen saayir yomb na jàpp yàlla maanaam mooy jàng ko rek na ko yàlla wàccee te xam ne dëgg la dana yàlla na ma ko yonente bi su fekkee sax xamulee ko loxo ci la bokk waxal na boppam benn loxo waxal na boppam ñaari loxo te nee na ñaari loxo yëpp lay jot rek yooyu loxo kal mënu ko jàpp ñaari loxo yëpp duñ lay jot waxal na boppam loxo yu bari mu ne wax sama banee naa bi ay din loxo yu bari la man def naa juróom-ñett la loolu xóodu yi ñaari xaaj lañ ci ñu jëkk ñi dañuy def taswiir joyal maanaam amu jëm ci yàlla ñu ne yàlla rek a xam nuñ firi suréen daal mooy jàng ko rek te duñ ko na ko yàlla wàccee ak yonentam saa yi daf daa wax ne gëm nañu lu yàlla wax ci la yàlla namm ak la yonent namm bon ya daaw ji ñooñu ñooy ñooñu jëkk ñi xelef ñoom la ñoo def tax ñi ba ya daani duñ ko taawul yaari loxo rek lañ koy firee waaye du yaari loxo yoo xam ne xamuñ lu lu loxo loxo xam nañ ne daal du yaari loxo yi moom suñu yaari loxo yi bu taaxee na ñoom dañ koy taayu yàddu dañ koy taayu ba kattan waaye nag suñu firee yàgg suñ ko firee xobratu dana am ci laay nangu waaye suñu indi yaari yaari loxo nag te xobratu moom benn la ñu kon di dëppee de kon nag lu gën ñu bàyyi ko rek ci saayar si te xam ne du loxo yi moom loxo yi nit ki ñun ñun mbindeef man daal yàlla safaan bala mel yaari loxo yàlla yaari loxo la yoo xam ne yàlla xam nañ mel ñun xamuñ ko waaye am na loxo la ndax wax na ko lo- lépp waa Alxuraan wax dëgg la man fi tamit mosul la kay fay saa na ko mu soob su ko soobee bu yaakaar wërsëg su ko soobee mu xatal wërsëg de genn ji nga nekk ci wala ya si daan na xam naa dolli te su leen aji bari ñu ngi ci ñoom maa ngi seen loxo sala yi nekk jëm ci amul ndax du jot ci sa borom sa dafa yaa nag daw wax ko faral nag kéefar de waaye tay na tam ñu ne day na mu digal seen ala daawat moo nekk wal bax baaxal mbañam ilaahum qiyaamati bi jëpp ko yàlla ko ku la maa awqadoo jëpp bu ñu saale naaram safara li naar bu ñu xale yonent bi ah laa waxee ko yàlla de safara rek moo ne wuñ taal yonent bi rek yàlla dana ko fay rek dalee seen pexe waaye xëy na danañ dàq dana ci suuf fasaa leen dugg ñu di yàq de te dañu yàq suuf wala yàlla laa yuhibu du muy yoon ak ñëpp du muy yàq ña suuf de suuf kenn mënu ko yàq waaye gannaaw bu aju waare xawee képp suñ gàllankoor ñu ñëwee gën ko rek dooka suuf la yàq de wala wa anna ahlal kitaab yi donte naka ñu xeeb téere amanu gëm nañu yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa taqaw tamit tamit ci suufe wa taqarna kon tey nag par anu wëri leen sa yaat yi may bakkaat seen de ndax am ahlul kitaab suñu gëmoon alquran kon yàlla faral leen seen bakkaat yépp wala xam naa moom fekkante nu xarfreel janaatu na ñu aljana xewel te kenn ñu dem aljana de ndax ñaari yoo la leen yàlla jox wala waa na moom donte naka ñoom aqaamoo jëfe nañu tawrata tawrat wal injiil ak linjiil wa maa unzila alaa rasuulihim jël ci ñoom ci alquran mu rabbi ci ko borom seen laa saloo kon te ñu lekk ñun fokk ñu ci ko ci kaw seen dañu tax ci arjuli ak ci ko ci suuf seen de su fekkee ne tey téere yi yàlla wàcce ñu àtte yi ci sant yëpp nangu nañ ko da ca tawrat ak linjiil ak li ci alquran yëpp ñu jàpp ko nangu ko ni ko yàlla waxe jëfe ko kon yàlla dana yaa teg mu bubb ci ñoom da bàyyi ko ci jëpp yàlla kaw suuf ñu ne aju naka la ci ñoom seen ummatun mbooloo muqtasidatun ñooy jub am na ci ñoom kay mbooloo mu jub mooy Abdoulaye di Sane di Saabaam waaye wa kasiirun aji bari ñun ci ñoom saa maa amaloon ban na jëf seen de waaye ñu ci gën a bari na seen jëf baaxut de waaye wa rasulu balix maa woon fee lekk ndax ko kooku lu ko waxal wàcc na ba nga xamee ne du jëkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan ragal ñu yàlgaan ko ñu ray ko ba dañ ko daa wattu guddi gi jot waaw loolu dañ daa moomoon ko comme ñu xam jàmbaar bi nekk ci buntu ko dama jaganaam di ko wattu ba bëtt ba yàlla wax laay ji nag fekk na booba saa bi noo baara sa moo moomee pour wattu ko yàlla wàcce laay ne yaa yaa rasul yow yonent yàlla Muhammad balleex jotalal maanaam su la mbooleem la wasalee ilee ko jëm ci yow li rabbi ko tukki fa borom sa lépp lu alquran indi jotal ko lépp di ci nëbb dara ngir ragal ñu def la lu ñu la naqari loolu ndam ko fan ndam defu la ma balaa ko jotul la risalaati yonent yàlla su fekkee nëbb nga ci dara yàlla xarab kon jotalee li la yàlla yónni de wala te yàlla yaatum ko dana mu xaar la ñu ne naa fi ci nit ñi yàlla dana la wax ci nit ñi lu yàgg yàgg duñ la joxe lu ñu sit balaa yow ak yàlla yonent yëpp ci rido néegam ñoo ci dara wattu dama ñu ji yàlla doon ma léegi salaatuma ko wattu yàlla dëggal na ko li mu ko waxoon lu ñu def nañ ko mën a luñ ko dara dàqoon tuuti rek jàng nañ ko ca uut booba ñu ne laa ji wàcc bi waaye bu fekkee laa ji wàcc na sax lañ bëggoon mooy rey ko rek rey ko nag yàlla mooy leen ko foofu laaya ji na yonent na jotal mboolem liñ ko yónni te buñ ci nëbb dara moo tax ay sosa di wax ne képp ku wax ne yonent nëbb na dara ci li ko yàlla yónni kon ma gan na aw nar waral yàlla de yàlla nga koy wax ne balex maa ngi lay lekk ma tax du ko lam ko san sama balax ko risalaat yi waaye yëpp na ci hadis yonent na guddi gañ ko rañaane yàlla jox na ko ñetti xam-xam benn xam-xam bala ko ne naka jotal ñu ñëpp te buñ ci nëbb dara boobu jotal na ko te nëbb ci wenn xarab mooy alquran ak bépp atte bu ñu ko laaj kooku jotal na ko nëbbu ci dara te mu nëbbu ci dara mustahil la ndax koy tax diine ji lépp jot ci ñun am na xam-xam bu ko yàlla xamal tànn loo ko su ko neexee jotal su ko neexee bañ a jotal mooy xam-xamu xaqiqa xamal na ko ñenn ñi nëbbu ko ñenn ñi ndax ñëpp seen xelaa bu jot daana wax ne waxtaane leen nit ñi seen kenn du sal xanaa bëgg leen ñu salloo yàlla salloo yonent am na xam-xam boo xam ne ne yàlla xamal na ko ko te sant ko mu nëbb ko booba nëbb na ko te jëfalu ca dara de loolu mooy ne laa naka yàlla laa yaa ci bëgg mu alqaw mu ne yàlla kaafir mu ne dee wet de kon waxalee Muhammad yaa al kitaab yéen yow dëkku nasaraan lastum déet yéen ala sey ngeen nekk ci dara li ñu moo ci diine xataa ko sey ne bal ba ngeen jëfee tawrata tawrat wala injil ak injil dinaa injil ak la waxale rek ngeen jël mu nga di ci koy borom seen yéen yow dëkku nasaraan nekk leen ci dara lu may ngeen jëfe tawrat ak injil ak alquran te tawrat ak injil ak alquran yëpp lu ñu santaane mooy gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de wala yasiidanna xanaa dolli kasiran aji bari minum ci ñoom maa ngi la wasale nekk jëm ci yow mi nga dugg ci sama borom sa kufra nga doy wa kufra nga weddi wala taasa bu jàqaal xamu ci nga kaafir na nga doy weddi dem inna alladina naka ñaaña amanu gëm nañu nga la fi naa ñaaña aado yowat nañu wa saabona saabona pour lañ bi nekk diggante yow doon nasaraan bi wax yi faaraar na nasaraan nasaraan yi maanaam nag gëm nañu bilaay ci yàlla wala mooy di kër bés laaxee ba daa ji mujj waa ne tam jëf saale am xarataag naa fi de wala xaafum jëf rek daal di am wala am jëm ñoom ñëpp ñu jàppee dëkk yàlla xel dem ndax daxaas naa ñun day jàpp ne ñu sax ban Israël ak rek ban Israël nee nañ gëm yàlla te gëm yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa arsalnaa yónni nañ ilayhim jëm ci ñoom rusulan ay yonent kullamaa jaa'ahum bépp ci dikkale leen rasulun ku yónni maa laa tahawaa dala toppatoo am fu suuma ay bakkan seen fariqan ku rek dafa boo ñu weddi leen wa fariqan ku rek yàquloo ñu rey leen leen ci Sakariya yaayaale wa hasiboo bañ jàpp nag allah takoona bu tabbi ci ñoom fitna suñu bugal ñu def loolu yëpp nag defe na yàlla du leen bugal waa moo sawa sawa lañ suñ maxa wa tam moo tañ sax su ma taabalaa topp nangul yàlla tuuba leen ci ñoom bañ tuubee su ma xamoo topp ñu suñ maxa wa tam moo tañ sax yoonu ñaareel te suñu aju bari ñun ci ñoom wala yàlla la suñu aji xam nañu dina yamal nañ koy dinañ jëf dana leen ko fay de laqad kafara wallahi wa dina allasina ñaana xaalo wax nañu ne dina laa naka yàlla woo moom almasihu mooy masihu ibnu mariama koy doomu mariama wa xaala wax na almasihu masihu ci ñeesa yaa bani israila yéen bani israila ubudulaa wéetaleen yàlla ak jaamu rabbi tey borom sama wa rabbakum tey borom seen diine yàlla jaamu yàlla la loolu ne ñeesa dina yoon naka lu mbiram nit mu ngi si ci bokkaal ñoom bu laa ci yàlla faqad harrama Allahu haramal na yàlla alaykum aljanna ba aljanna be wa ma'waahu saxwaayam naaru safara ku dem aljanna nag xam na sam jëm safara rek wa maa li zaalimiina yéen ñoo looy weddi na mu naan saara way teral mbugal de laqad kafara wallaahi weddi na allah sa ñaaño xaale wax nañu ne ina laa naka yàlla saalisu salaasatin moo aji ñetteel ñett ku ne ci ñoo ko wax ne yàlla yett lañ ne saa yàlla la ndeyam yàlla la yàlla yàlla la waam wamaami ilaayin waaye déet yàlla ilaayi laa ndara yàlla waaye bu jidi jann de waaye waxuñ dëgg de yàlla kenn rek la way ndam yan taxoo wallaahi ndam dayuñu amma yàquluna wali si sunañu wax ko lawa ma sama xal naa jàpp àlla sina ñaane te sara yàq nañu ñun ci ñoom afaawu mu gën alim mu laa ji ñëttude afara yàq mu ndax tuub ci ñu dalaa jëm ci yàlla waaye sax tura na sañ balu ko wala yàlla xafoorun aji bay damu ñee nag tajam rahim na yëpp na ñoom man masihu déet masihu ibnu mariama kay doomi mariama ila rasul ndara ci ñoom la mu taqara dawoo nañu xam ni jëng jëkkam rusul yonent yi Isa bu yàlla ab yonent la rek naka mboolem yonent yi wéyoon ummoo ndeyam siddiqatun dëggalaatoon na de yaayam it yaayam la wàllu yu sidd kaana na ko nañu yaaturaane di lekk taama ñam soo bëggee xam ne du ñoom yàlla dañ daa lekk ñam lekk ñam loo ci déggee ku lekk ñam fokk nga jël tànk su naan ndax fokk nga gaanuwaay ndax yooyu yaar jag na jàpp yàlla un sur seetal tey fa nu béy ñu ne ko nuy digale loolu mu ne leen laa yaati tekk liy tekk liy wéet ñu ne su ma su perte feetale am na yoo feetale naka dee su perte rek ngeen si dëgg ànd ak taxaw lay te waxal ataa bu ngeen ndax da ngeen jaamu mu ngeen laa yëngu yàlla maa laa yëngu ci loolu jëriñ ci mu lakk mu ne leen yaram jëñ ak ndar wala na xam lu yàggal di jëm jëriñ de wala yàlla woo moom xam moom waa ji dëgg seen wax alal moom waa ji xam seen mbir de te waxal yaa ci kaw yéen yahuda ci nasaraan laa tax na bu leen jéggi daayo fi diine seen ci diine seen xaaral xaq jéggi daayo bi duñu du duñu dëgg de bu leen jéggi daayo jéggi daayo loo xam ne du dëgg mooy tëral insa o suufeel insa ba xëpp ñu yahud ñi nga xam ne dañ koy suufeel ba ne doonuñ jaaroo bu leen ko yëkkati itam yëkkati bu xëpp na naka nasaraan ñu ko yëkkati ba xar na yàlla la wala doomu yàlla la ñaar ñëpp ci ci nag yow tàggan nañ waaye nasaraan itam jéggi nañ daayo de lii dëgg nag mooy li julli ñuy wax mais sa jaam yàlla la yonentam yàlla la raw yàlla la de wala te dama bu leen topp waaw xam ba mu nekk ayib xam nga leen ñu réer ñu ngi xam ñu jël waaw ba léegi ñu réer te seen aji bëri ba ba léegi ñu réer am sa waaye sax bi di wëñ si yoonu jubbe loolu na def na ala si na ñaare te xale wet nañu bani israël ci bani israël ala ni saan daaw ci lan daaw de yéen sa ala daaw de moo leen ko doon ñoom ñoom ila ta bañ sotti leen ñu di ay golo seen ko sa daloo na jafaaru bàqara waaye sa aji na sa ibnu marama te doon marama ibnu marama te doon marama nag naka la yonent yàlla ne saa itam moo leen ko doon ñu ma sax leen ñu nekk ay mbaam tëgal te mooy la xale ñoom ci mujj saar yi ñooy waram taabal ja zalika léegi la rëbb wàcc ci ñoom dinaa xew ci saab si lañu mooy yàlla de wakaano tam nekk yaata dina lu jógi daaw de kaano nekk nañu laawata naa xaana tere xante suñu am ñun këriñ ci luñ sib paxaloo lu ñu def ko lu indi mbugal maa ngoog nag te li ñu ragal loo mooy loolu itam bani israel lu tax yàlla xaral leen dañ doon def lu bon te kenn digalu leen lu baax kenn teew leen lu ban lañ doon def su fekkoon ne dañ doon tereyante lu ban kon yàlla du leen xalab de waaye ba nga xam ne nag ne tereyante lu ban lañ doon def moo tax ba buggal ma ñëwee naka la leen de yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu da leen digle lu baax di tere lu ban da da ngeen di gis ak kër goo xam ne duñ topp la ak bànneex ak bakkan duñ topp waa ak ku nekk yéen ca xam boppam ak tànn àddina ci ci diine da ngeen gisee loolu ban ku ne feebaru ci ndigal boppam waaye bani Israaël xalak nañ leen ko lii lañ wax ne moo tax ñu xalak leen de daawuñ teraan ko lu bon la bi sa bon maakaanoo yo xale ba jëf seen jooju de taraa ji saanga yow Muhammad kasiran aji bëri ñunum ci ñoom ko wanda na ñii méngoo ala si na ñaane kasara wet nañu da nga gis ñoo xam ne bañ yonent bi rek tax nañu dem lii waaw méngoo noonu yàlla yi ngir rek waaw ngir bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la bi sa bon maa qaddamat la jiital na day ñu leen am si mooy bakkan seen de waaye lañ jiitale seen bopp bon na ci ñoom de am taxe ko laaw bu mereel yàlla alayhi ci ñoom mooy yàlla lu tax leen finança bi doon te ñoom xaalis gën a way jël lañu finança bi jëmbu ko dama alaxara de wala kaanoo doon te nekkoon nañu yéen ñu dinañu dëggal di laay ci yàlla dana bi yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dana am sulaa la waxale ñu jëm ci ñoom ma taxase ñu jàppati ñu leen awliya yi réew ñu ngoo de wala ci la fi nekk kasiran aji bëri ñu ci ñoom faasi ko way gën nañu topp yàlla de laa sallallahu alayhi wa sallam wa sallam jërëjëf yàlla yàlla feeñal yàlla ci dajé ci wala ñu wala la xamul wala ci tan dañu ci zanu ko dal jamm ko ci dañu la akbar fa wala ko fa ci fa ci ñu tax ñu ko barku di islam inna hu ala zalika qadir wa zalika ala ilahi allah yusalli ala sayyidina muhammadin wa sallam dan hada najasi yunu dang ma